moo nekkoon moom moo nekkoon moo moo géré woon ci suuf. déglu moo la moo nekkoon la femme de l'ombre. non dama lay wax. wa. mais d'accord naa mais léegi pour elle n'était pas la seule. dama lay wax mais may ñu yëgal las nañ avancé bu gën a ah, dama lay expliquer Mimi n'est pas militante de première heure de l'APR. moom d'accord na ko wax na ko sax. yaa ngi dégg de presse bi. businessman la bu ñëwoon di jaay ay stratégie en contrepartie le président la euh, proposé ko na ko comme am nga compétence yi j'aurais préféré balaa maa jënd yi nga ñëw à mes côtés nga xam ne bu ma la bu ma bu ñu gañee nga bokk ci dispositif bi. Mm-hmm. pour mettre en œuvre notre politique. Mm-hmm. waaw loolu d'accord nañ ci mais na mais yow yow sa yow li ngay défendre APR ni ngay défendre Benno Bokk Yaakaar bokkul ak bosu Mimi Idriss Seck su génnaan 12 heures 12 heures 5 minutes Mimi Touré mooy dem au charbon. mais c'est non que mu nekk il n'est pas le seul. je donne un exemple mais il n'est pas le. il n'est pas le seul eh, bah, bokkul elle n'est pas le. Ablaye Seydou Sow da ko doon def. mais xam nga lan mooy débat ñoom ñaar tolluwuñu dayoo. non ban lan la Ablaye Seydou Sow il est maire. mo Ablaye kañ la nekk maire yàggul. bokkul ak Mimi Touré bi nga xam ne. Mimi dafa mos a nekk dafa nang rek ministre la Mimi Touré da ngaa fàtte procès Karim yi. kan ah moo ko dafa nang Mimi Mimi n'a jamais été élu. mais seen mon frère. mais d'accord na mais seen dayoo ñoo tollewul Mimi Touré ministre de la justice. dirige procès bu Farba Ngom Mimi Touré da def. bul jaawale catégorie yi. Abdou li mu défendre président Mimi Touré da ko def. dañoo tolloo catégorie. ah Karim Fofana li mu défendre président lan mooy li muy góole. defal nang rek may ma expliquer ñom ñaar wuñu catégorie da ngay bolé catégorie mais Farba Ngom moo ko ëpp parce que Farba Ngom depuis 2014 il est maire. mais Farba Ngom depuis 2014 maire Farba Ngom yow sañ nga ko def ministre. non dama la moo tax na la wuñu catégorie. donc amna na yu nga xam las may ma ma yeggali. ba catégorie ñoo tolloo le choix des ministres le choix des ministres. c'est juste la confiance du patron. mais Farba Ngom mais Farba Ngom mën na nek ministre de l'économie et des finances. ban finance ban Sénégal ban dëkk. Sénégal. las nañ jall ci benen point mais Farba il a la confiance du président de la République. président mon fal ministre. yow ne sax mun na fal. alors que boko ci parti Lass man ma ci dul waxati Farba ministre de l'économie des finances. Farba Ngom mun na président mun fal. même premier ministre. il le mérite. parce qu'il a la confiance du patron. Mimi Touré n'a jamais été élu. elle n'a aucune légitimité. Après, ses sorties. sont d'une indécence. Mhm. parce que. Mimi n'est pas reconnaissante. li président y amul un homme politique wala un dirigeant dans le monde qui a voilà mais elle n'est pas reconnaissante. On ñuy wax c'est elle qui est une traître. Ah, parce que parce que Mimi Touré 10 heures le travail a commencé. de 10 heures jusqu'à 19 neuf heures waxoon nañ ko le choix de Benno Bokk Yakar c'est Amadou Mam Diop. Mhm. pourquoi elle n'avait pas fustigé ce choix. pourquoi toog ba ñu daaneel ay table jusqu'à 19 heures pour pour sortir comme une petite enfant gâtée pour dire que. je suis est-ce que nekkuloon dafa bëggoon voter contre. moo tax mu noppi toog jàpp voilà je suis d'accord avec vous xam nga la responsabilité voudrait que. Mm. bu nekkee moom elle est d'une maturité elle est responsable yaa ngi dégg maanaam day takk sërëm ba mu dëgër mooy rester au sein de l'hémicycle prendre la parole dire à haute et intelligible voix moi Mimi je ne voterai pas pour le candidat de Benno Bokk mais yegguñu won fofu mo tax xam nga ci lañ leen wax vote bi dina am du am mu tok japp ndax. bëggul dugg ci defal la rek bëggul dugg rek. procuration xam nga présence mais présente. elle était présente. mais elle est partie. mais xam nga tax.